mu mel ne mën nañ cee dégg ne kat weeru koor wi lim war a jural jullit bi ragal yàlla ci la bokk te ragal yàlla di ndigal lu am solo bu suñ borom digal jaam yi digal ko jullit yi ci ay barab yu wuute ci alxuraan waaye di lu am njëriñ loo xam ne njëriñ lu bari lay jural jullit bi bu fekkee ne sàmmoonte na ak moom kon mu doon weer wu am njëriñ boo xam ne suñ borom wax na ni wa an tasuumu la lakum boo leen wooree daal moo gën ci yéen gëneel yooyu nag lañuy ñuy jéem a jàngat yenn yi ci dellu ci doomu aadama bi jëmmam doog a ñëw nag ci yi nga xam ne dana dellu ci société bi bu njëkkee ci nit ki l'individu al fard muy kenn ku ne ci ñun ana bu weer wi jeexe lan lañu mën a gis ne weer wi bàyyi na ko ci ñun mu bokk ci li woor weeru koor di jëriñ nit ki ne daf koy daf tàggat day tàggat doomu aadama bi ci muñ te muñ di lu am solo ñu wax ne sax diine buñ ko doon xaaj benn xaaj bi muñ lay doon as-sabru nisful iman nga xam ne mboolem lijaam bi di def digganteem ak boroomam mënu cee ñàkk ak muñ moo xam an la wala ala mooy li ko suñ boroom digal faw daf koy jëf donte laa yukallifullahu nafsan illa wusaha waaye faw dafay muñ ci jëf ga mu koy jëf li suñ borom tere jaam bi itam donte nuru na lu neex ci bakkan fawu da koy muñ da koy muñ ndax mu mën a wàccoo ak tere googa kon mu mel ne muñ mënta ñàkk ci jullit bi xam ngeen ne ñeent yi suñ boroom settee woon ci wax ne nit ñëpp way perte lañ ñeenti ñooñu ñuy dénkante muñ ci lañ bokk kon muñ googu lu am solo la lu jullit bi mënta ñàkk te weeru koor wi daf koy jàngal jullit bi daf ko ciy tàggat lu ñuy tàggat doomu aadama bi nag wala lu muy tàggatu ngir meloo wa mu cey jëlee des ci moom mooy tax mu am solo kon ni nit ki di muñee xiif mu muñee aw ñam ni mu neexee mu muñ xiif ni mu mettee mu muñee ko naan ni mu neexee mu muñee ko mar ni mu mettee waaye lépp loo xam ne rek dafa jëm ci bànneex wala luy dog koor jaam bi bu ko tàggatoo ci fukki fan ak juróom-ñeent wala ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala fanweeri fan war na am lu mu bàyyi ci moom mu bokk ci ba tey yi nga xam ne muñ wala weeru koor war na koo jëriñ jaam bi mooy dabtu nafs mooy nga am maîtrise ci sa bopp ci sa bakkan maîtrise en soi-même te lu am solo la bari na luy yàqal jullit bi wala yàq googu di law ba jëm ci ñeneen sax te ñàkk a sa bopp moo koy waral kon ni ngay xiifee am loo mën a jëfandikoo te kenn du jàpp sa loxo ne la bu ko def lu dul sóoraale jëmmi yàlla suñu borom subhanahu wa loolu jaam bi bu ko bàyyee xel tàggatu ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala fanweeri fan bu ci jógee war na am lu des ci moom mu jàngal ko ko ci mu maîtriser boppam maîtriser bakkanam kan loolu bokk na ci li mu war a jëriñ jullit bi bokk na itam li ci li weeru koor mën a jëriñ doomu aadama bi mooy mu muy jéem a yar ci boppam ak taqwa muy ragal yàlla ragal yàlla googu nga xam ne moom laa ne suñ borom digal na ko tudd na ko ci tuddin yu wuute ya ayuha nnaas taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida foofu nit ñi la wax yaa ayuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaatih way gëm yi la wax ragal leen yàlla kem nim ko yeyoo taqullaha mastataatum ragal leen yàlla ni ngeen ko mënee fa seen kàttan yam eh, yaa ayuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan ragal leen yàlla tey wax wax ju jub wax ju dëggu wax ju tege kon ndigalu suñu borom la ndigalu suñu borom nag lu mat a la te mel na ni weeru koor daf koy daf ciy dimbale jaam bi mu tàggatu ci te xam ngeen ne baatu taqwa dañ koy tekkee rek ragal yàlla am mel na ni sax am na yeneen baat yu ñu mën a jëfandikoo ba tey lu mel ni xawf mi ngi fi alxashiya alxushuu bu ci nekk mën naa tekki ragal donte am nañ ay wuute waaye ak taqwa dafa am maanaay wattandiku dafa am maanaay wattandiku kon mel na ni teet suñu boroom ci sa jëf ak ci sa wax at taqwa daf koy làmb ittaqu naara walaw bi shiqi tamra wattandiku leen kon foofu baatu wattandiku la mooy nga wattandiku suñu borom nga sàmmoonteeg moom ba bañ a tàbbi ci lu wuute ak ngërëmam kon jaam bi waxuma la lekk walla naan waaye ni muy sàmmontee ak xelam ba du tàbbi ci lu neexul yàlla di ci nuur di ci xalaat te xam na ni xelam bu cay dem ku dul yàlla mënu koo xam kon loolu bu ko yaree ci boppam ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala fanweeri fan war na am lu mu des ci moom kon bokk na ci li weeru koor war a jëriñ nit ñi bi weer wi jàllee mooy ñu yëg ci ne dolleeku nañ ak ragal suñu diggante ak suñu borom subhanahu wa te ñu ngi doon wax ne la laallakum tattaquun ji mu waxoon ci aaya bi kon mel na ni lu am solo la jaam bi yëg ne weeru koor wi dolli na ko ak ragal ak wattandiku digganteem ak suñ borom subhanahu wa loolu muy sàmm loolu muy jural jullit bi moom weeru koor ci jege yàlla ci bàyyi ko xel ci ci ci wattandiku ko mën nañ jàpp ne bokk na ci li tax mu am tolluwaay bi mu toll ba suñ borom wax ne kat jëfi doomi aadama yëpp ñeel na ko ba mu des koor man maa ko moom te man maa ciy fay mu mel ne bokk na ci njëriñ yi weeru koor wara a julal doomu aadama bi mooy mu mu tàggat boppam ci ak dëggu dëggu ci jëf ak ci wax ndax dafa mel ne dëggu googu mooy tax koor mën a wér yonent bi sallallahu maa wax ne man lam yada qawla zuuri wal amala bi fa laysa lillahi xaaja fi an yada taamahu wa sharaabahu képp ku bàyyiwul waxi caaxaan wala waxi mbóosóor wala lu dul dëgg wala di ko jëfee suñu borom amul aajo yittewoowul bàyyeem googu mu bàyyi lekk ak naan mel na kon jaam bi bu tàggatee boppam ci weeru koor wi ànd ak melokaanu dëggu ci jëf ci wax ci jëflante bu weer wi matee loolee war na am lu mu bàyyi ci moom kon loolu bokk na ci njëriñ yi nga xam ne weeru koor war na ko jëriñ jenn jëmm ju ne ci jullit yi ñu war ko bàyyi xel bokk na ci njëriñ yi itam donte yu limu la dañ koy tënk mooy jaam bi fexee yar ci boppam ak ñaw mooy lépp lu muy def mu jéem ko def ak na mu gën a wéree mu jéem ko def ak exactitude nga xam ne du ca làmbatu te du ci ànd akuk càggante ni nga xamee ne yow mi woor booy jàpp sax booy gallaxndiku yaa ngi bàyyi xel am lu ci rëcc lu mu tuuti tuuti tàbbi ci sa biir kon noonu ngay ngay sàmmoontee di bàyyi xel loolu dafa war a doon melokaan wu des ba nga xam ne jaam bi dafay loolu dafay mujj des ci moom rawatina digganteem ak boroomam te loolu moo koy dimbale ba du bokk ci way sàggan yi kon weeru koor lu bari njariñ la ci jullit bi ci kenn ku ne ci ñun la war a doon ñu tënkee tomb boobu ci ne war naa jàngal jullit bi sant suñ borom subhanahu wa taala suñ borom yi lu bari la lu limu la wa in tauddu niamatallahi la tuxsuha waaye mel na ne nag am na ci yoo xam ne duñ ko bàyyi xel léeg-léeg mu mel ne ni ngay amee loo mën a jëfandikoo suñ borom dox sa digg ak loola ba dog jot nga mën koo jëfandikoo war ngaa bàyyi xel xéewalu suñ borom yi ne kat yow day jëmmi koor gee tax munoo ko woon laal waaye am na sax ci jaami suñ borom yi ñoo xam ne donte du koor sax mën na leen a jafe kon loolu itam war naa jur ci ñun bokk na ci jeexital yi ne war naa tax ñu gën a bàyyi xel suñu boroom subhaanahu ak di ko sant kon bokk jullit yi yooyu yenn la ci tomb yi nga xam ne war naa jeexitaloo ci weeru koor wi jëriñ ko jullit yi weeru koor de dama dafa mel ne dinaa koy faral di misaal ne bu maam nit ki buñ ko doon defal stage de formation wala mu dugg ci kan boo xam ne dafa am luñ koy tàggat moo xam lu mel ne séminaire de mise en niveau wala lu mën a doon nga xam ne lañ la cay tàggatee donte fan yu néew la yu limu donte weer la wala lu ko yées lañ la cay tàggatee day doon loo xam ne durée ba ngay def formation bi bu jeexee lañ la ca tàggatee dafay des ci yow dafay des ci yow loolu mooy tax mu am njariñ kon mm, weeru koor wii mën nañ cee jàngat loola te jàpp ko ci ñi jaam bi di gën a farloo ci ndigalu suñ borom yi ci jëf lu baax bu matalee farate yi mu dolli ci ay nawaafil ci lu mën a doon farlu ci jàng alquran yokk ci la mu daan jàng nawaafil yi sa taraawiix mu di ko def kon bu weer wi jeexee la mu doon def ci diire booba war na cee am lu mu lu mu desal donte sax xëy na du mën a wéy di ko defee nam ko daan defee ci weeru koor wi waaye am na lum ciy dolli ca lam daan def lu jiitu ci koor gi dana mel ne lu woyof ci moom te dana ko jëriñ kon ñu ñëw ci yenn ci njëriñ yi nga xam ne weeru koor dana ko jëriñ société bi dana ko jëriñ ndax kenn ku ne ci ñun jëmmam jëmm yu jëmm yëpp bu ñu booloo yiy dund ci benn gox mooy former mooy constituer société kon bu jëriñee kenn ku ne ci ñun nag ci njëriñ loolu fés day mujj jeexital doon njëriñ ci société bi nga xam ne weeru koor dafay jegele société bi rawatina jullit yi nag day tax ñu gën a jege day tax ñu gën a yëg ak mbokk day tax ñu war a gën a yëg ak doon benn loolu weeru koor daf koo war a jëriñ nga xam ne jullit bi ni mu war a demee mbokk jullitam mooy doon benn ak moom ba mel ne benn njaboot benn famille ni muy mel noonu la jullit bi war a mel ak mbokki jullitam te loolu dinañ ci ñëw ci loo xam ne suñ borom wax na ko ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi kon mu mel na sax noyau ba gën a tuuti ci société muy famille weeru koor am na lum leen di jëriñ mooy da ni jegeele daf leen ni rapproché boobu ndax jamono demee na noo xam ne am na ñoo xam ne ñu toogandoo sax ci bërëb jëfandikoondoo wala am benn repas bu ñu bokk lu jafe la waaye mel na ni weeru koor léeg-léeg dana ko yombal nit ñi te loolu la ca mën a juddoowaat ci luy dëgëral àndu njaboot googu lu baree bari la muy weer woo xam ne bari na xeeti jëf yoo xam ne dafay jéggi nit ki jëm ci moroomam te xam ngeen ne loolu mooy jëf la joo xam ne dafay jëriñ société bi moo tax ba jokku mbokk ak rafetal jëm ci mbokk ci weeru koor loolu dafay fés ci anam yu bari donte sax xëy na yenn yi dem na ba forme yi changé lu mel ne rafetal jëmee ci mbokk wala sax infaaq jëme ci mbokk mel na ni xëy na lu mel ne suukari koor yi ak ndogu yi looloo ko yëkkati woon mel na ni looloo ko yëkkati woon te lu am solo la fii ak mi ngi des nag jëmmi suñ borom di tax fii ak aada taxul wala dama koy def bañ ku ma xas wala léeg léeg sax nit ki di ko xaar ci yow ba boo ko deful mu mën la koo jàppal wala mu mën la koo sikkee wala boo ko defee ci yenn anam yi mu mën la koo xasee wala nga ciy toggoo coono yoo xam ne wóor na la ne àttanoo ko te jëmmi suñ boroom taxul mel na kon loola njëriñ li nam waroon a demee du ko demee kon weeru koor dafay jur we weeru yiw yiw la ak njëriñ ak barke ci mboolem société bi noo tax ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci xadis yi wér wax ne naka jëkk dafa tabe woon moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jawaadun karimun bil makaarimi yuxsinu ku tabe la woon waaye tabam googu dafa doon yokku ci weeru koor te xam ngeen ne ak tab ñaare yaa ngi koy jëmale ci sa mbokk jullit wala sa mbokk deret wala ab néew doole te yooyu yëpp ñooñu ñooy former société bi kon mu mel ne loolu yëpp njëriñ la joo xam ne dafay jëm ci weeru koor ci mën koo jëriñ société bi niki jéggalante ku ne mën a muñal sa moroom ku nekk am loo mën a muñ ci sa moroom ku nekk mën a baalu àq sa morom ku nekk mën a fésal mën a gën a fésal jëfi yiw ak rafetal jëmee ko sa mbokk te xam ngeen ne loolu kon yu bari njëriñ la ci société bi ni ki noonu weeru koor dafa war a bokk na ci lim war a jur ci société bi mooy ñu yëkk ne ak dimbalante dafa war a nekk ci diggante jullit yi ak dimbalante jullit ak mbokki jullitam lu ci lu ci kenn yëg rek ñeneen ñi dañ ko ko war a yëgle yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ko wax ne jullit yi day ni ñu war a mel ci seenug soppante ak seenug jàppante mooy dafa mel ne jenn jëmmi doomu aadama bi benn cër bu ci am tawat wala jafe-jafe mboolem yeneen cër yi dinañ ko yëg donte bopp baa am jafe-jafe wala tawat fièvre bi ci yaram bi yépp lay dem donte bëñ ak ni mu tuutee ci doomu aadama bu amee jafe-jafe buy metti guddi yaram wi yépp ñooy fog ñooy bañ a nelaw yonent bi sallallahu noonu la misaalee ne jullit yi noonu lañu war a mel kon loolu weeru koor daf ko war a suuxat ci diggante jullit yi te loolu nga xam ne ni ñu ko waxee yonent bi saa daan na ko def saxaaba itam bariwaana waa lu ñu miinoon ci ñoom ñuy jëf-jëf yooyu ba ci sax yu bari yuñ daan taxawal ci ay jataayu ndogu di ci yaatal ñi seen loxo jotul seen ginnaaw di ci yaatal jirim yi yooyu yëpp dafa daan tàbbi ci loola ci yëg li ñeneen ñi di yëg sa yeneen mbokk yi mu mel na sax bokk na ci xikma bi ci nekk ci lu mën a jëriñ société bi moom weeru koor li ñu waxoon ne yow mi am loo mën a jëfandikoo mu yomb la ngir jëmmi suñ borom tax nga tere ko sa bopp fi xajar gi bi fajar gi di xaree ba fi jant bi di sowee mu mel ne bu dutoon koor mën na am ñoo xam ne dinañ dund ba seen dund jeex duñu yëg coonob xiif wala mar ndax suñ borom may na leen ko waaye ci weeru koor kat la ñuy ne bi fajar gi di xar ba jant bi di so nga xam ne mënuma fee jëfandikoo aw ñam ni mu diisee ci man ni mu mettee mu def ko ngir jëmmi suñu borom ndekete am na ci ñoo xam ne bu dul weeru koor sax xëy na loola mën mën na leen a gaar loolu dafay jural jullit bi mu gën a bàyyi xel mu gën a gersu mu gën a gersu ay moroomi jullitam rawatina ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw mu gën leen a bàyyi xel looloo tax joxe ak saraxe ñu koy baril ñu koy gën a baril ci weeru cor ndax santiment boobu jullit bi di am ne kat ñàkk a mën a jëfandiku ni mu mettee am na ñoo xam ne ndekete seen situation daf leen yóbbu ci loola kon loolu bokk na ci li ñu mën a jàngat ci weeru koor yi ba ci sax bu weer wi di jeex lu mel ne zakatul fitri muy azakay muuri koor nga xam ne dana permettre ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ñu mën a yëg ak mbégte ñu mën a yëg feet bi feetu bi jullit bi di yëg ci bis bi ñu mën koo yëg te bokk ko ak mbokk jullit yi nga xam ne loolu yëpp dafay tàbbiwaat ci njëriñ yi nga xam ne weeru koor am na ko ci société bi foofu nag mbokk jullit yi dinañ fa taxaw ab diir ci njëriñ yooyu weeru koor war a jaral jëriñ société bi waaye sax société bi ni ñu war a comporté woo en tant que ay jullit ndax jullit yi dafa am lu leen boole te mu mbokk ci xasaayis yi ci gën a fës mooy ne ay mbokk lañ mooy ne aw xeet lañ innamal muminuuna ixwa kon ak mbokk lañ te mbokk dafa am nuñ ko war a téyee fa aslixu bayna axawaykum suñu borom dafa affirmé dafa saxal ne jullit yi ay mbokk lañ bi mu ko saxalee ba noppi nag mu am lum ci digle mooy ni ñu war a jëf ni ñu war a jëfee ci mbokk googu niñ ci war a rafetalee niñ ko war a dundalee niñ ci war a jàppantee kon bokk na ci jagoo yi jullit yi am mooy na ay mbokk lañ ni mu ci bokkee ne aw xeet la ndax suñ borom moo waxal suñ bopp moo waxal boppam ne wa inna haadihi ummatukum ummatun waaxida seen xeet wii daal benn xeet la muy yéen jullit yi wala yéen way gëm yi benn xeet la wa ana rabbukum te man may seen borom mu mel ne lu bari mën nañ ko caa jàngat yàlla foofu dafa dafa saxalaat dafa affirmer ne benn xeet la affirmer waat ne man may seen borom mu mel ne lii yéwénal xeet wi di ci sàmmonteeg jëmmi suñ borom jooju subhaanahu wa taala ci lay bokk bi mu saxalee ne man may seen borom ba noppi nag daf ñoo digalaat ne nañu ko ragal fattaquuni taqwaa ji ñu doon wax ci weeru koor wi dafay ñëwaat foofu mu mel ne kon mbokkook jullit gi dañu ko war a bàyyi xel te xam ne ndigalu suñu boroom la subhanahu wa ni mu ko saxalee ci yeneen barab ci alquran ne dañoo war a doon benn dañoo war a jàppante lu kenn ku ne di yëg ñi ci des dañ ko ko war a yëgle ngir jëmmi suñu borom yonent bi saa sallam misaal na ko feneen bi muy waxee ne julli yi ni ñu war a jàppante dafa mel ne ab tabax ni mool yi di jàppantee ba nga xam ne dafay mujj doon benn tabax dañ leen di bokk daaneel wala ñu bokk leen bàyyi noonu suñ boroom wax ne waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu na ngeen na ànd mooy ci càllale loolu buumug suñ borom gi loolu mooy lan mooy bañ a teqalikoo mbooloo mi wala bañ a def luy yàq ànduk mbooloo mi kon loolu itam digal digle suñu boroom la mu mel ne saa su ne dañ koo war a bàyyi xel waaye rawatina ci weeru koor wi nga xam ne kenn ku ne war naa fexe di daw luy jur teqalikook jullit yi walla luy jur ak fitna wala luy jur loo xam ne ñenn ñi ci ñoom dinañ ko jàppeel dinañ ko jàppal ñi ci des xëy na dinañ ci ñëwaat ci kanam ci li des ci waxtaan wi kon mel na ni waaw bu ko defee kon ñu xam ne rekk loolu ku ne da koo war a bàyyi xel te foofu it xëy na weeru koor wi ñu bari am nañ xër ak bëggub def lu baax xër ak bëgg bëggub bégal jullit yi xër sax ak bëggug jàngat mag ñu baax ñi fi ne woon waaye mel na ne nag jàngat googu rawatina nag ci média yi ak ci réseaux sociaux yi bu demee ba war a jur leneen bu boobaa dafay mat a bàyyi xel donte sax wax naa ne mën na am xërug def lu baax moo leen ci yóbbu waaye ñu xoolaat anam gi ndax mag ñooñu li ñu fi nekkee woon du luy boole jullit yi ah kay li ñu fi nekkee woon mooy luy tax jullit yi gën a nekk benn seenu njullit gën a wér mu mel ne tey doon na gën a bari njariñ mag muñ ci jël ñu indi ab jàngalem walla ñu jël ab téereem boo xam ne daf ko jëmee ci jullit yi wala daf ko jëmee ci ndaw yi wala daf ko jëmee ci adolescent yi mën na am njëriñ la dana gën a bari walla sax lu rafet la ñu daan jëflante ci seen biir ñoom te loola mi ngi fi loolu mel na ne buñ ko doon indi dana njëriñ la dana gën a bari dana dana gën a wane benn ak jullit yi te dara luy yàq du ko jur waaye nag bu fekkee ne dafay mel ne ni ni mbëri làmb yi di def ci fa face à kenn ku ne di yëkkati sa bopp di wax say jaloore wala kenn ku ne ña ànd ak yow di yëkkati sa di la yëkkati di wax say jaloore loolee la muy mën a jur mën na am njëriñ li du ca bari ci société bi te ni ñu ko waxee woon aw yiw rekk lañ lañ ëmbaloon mboolem jullit yi wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allaahu nee na képp ko gis muy wax baatu laa ilaha illa allah bu ko jàppee ab noon xëy na loolu dinañ ci ñëwaat ci lu suñ borom leeral innamal muminuuna ixwa ak inna cheytaana lakum aduwun kon jullit yi ak mbokkoo lañ séq bu ñu amee noon iblis la doon seytaane la doon nga xam ne bokk ci ay kër wala sax ay néeg ay néeg maam genn kër ay néeg bu ci nekkee kër ga am jàmm mooy mooy jig néeg bu ci ne ndax bu fa ak lakk amoon mën naa am kenn du ci mucc donte ci benn néeg la tàmbalee bu fa jafe-jafey courant amoon donte ci benn néeg la tàmbalee mën naam am ñi ci des duñ ci mucc moo tax ba is kullu wirdin yuridil murida li xadratillahi walla yaxiida loolu la jàngale moom cheikhuna ahmadul xadim ak fu mu mën a bokk li ci am solo rek mooy fa mu koy jëmee muy ci suñ borom subhanahu wa kon loolu lu mat a bàyyi xel la rawatina nag ci weeru koor nga xam ne li mu war a gën a jur ci jullit yi mooy ñu gën a suudeewu wajal qulubana ala tawaadudi bila tanaazuin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaaxudin wala tanaafuri dina tax suñuy xol mu sore ak kiñaanante ak mbañante ak dawante ak lépp luy teqale ab jullit ak moroomam te njëriñ rekk lay jural société bi xatta nasira muslimina xaashiin loolu lay bu dee am ndam ku ci am ndam jullit yi lay doon moo tax ba lu mat a bàyyi xel la rawatina nag ci weeru koor loolu ñu wax ne benn ak jullit yi ndigalu suñ borom la suñ borom wax ko ci barab yi wuute yonent bi sallallahu jàngale ko am na fu mu waxee ne ci xadis bu muslim solo abu hurayra radiallahu anhu nettali ko yonent saa salaam wax ni suñ boroom dey gërëm na ci yéen ñetti mbir ni mu sibee ci yéen ñetti mbir wax na ñett yi mu gërëm ci yéen mooy ngeen jaamu ko te bañ koo boole ak dara ñu jaamu suñ borom te bañu koo boole ak dara waaye ñu ngoy ci diine ji te bañ a teqali ko loolu kon digleb suñu boroom la boo xam ne kenn ku ne ci ñun war na koo bàyyi xel kon xasaais yi nga xam ne jullit yi dañ ko am ñu wax ne bokk na ci mooy ne ay mbokk lañ al uxuwa diin ne bokk na ci ne benn xeet lañ ummatun waahida mu bokk ci ne ba tey ci lu ku nekk war a bàyyi xel mooy lépp luy jur ak noonoo ci diggante jullit yi lépp loo xam ne dafay jur ak noonoo ndax seytaane dafay bànneexu dafay bëgg ci di gis ne am na safara suñu taal ci diggante xoli jullit yi ba ba am lu ku nekk di yëgal moroomam mbégteem seytaane boobu nag kenn waru ko koo may te mbégte moomu mi ngi jëm ci lépp loo xam ne dafay noonale diggante jullit yi kon ñu bàyyi xel ñaar yooyu ne ak mbokkoo moo fi am akuk noonoo ak mbokkoo jullit bu ne sa mbokkum jullit sa mbokk la innamal muminuuna ixwa boo leen dee am noon benn noon la muy inna la lakum aduwun fattaxizuhu aduwan foofii suñ borom dafa saxal seenum noom daal mooy seytaane affir dafa affirmer loolu pare doog a digal nag ne nañ ko jàppee am noon kan benn jullit du jàppee mbokk jullitam ab noon ndax du noonam waaye mbokkam la mu bokk ci jago yi nga xam ne jullit yi war nañ ko bàyyi xel ngir seen mbokkoo googu mën a yéwén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 kon ñu wëyal fi ñu tolloon di wax ne xasaais wala jagoo yi boole jullit yi te mu bokk ci ne ak mbokk ak ay bokk lañ bokk ci ne benn xeet la da cee bokk itam wattandiku ak noonoonte ak lépp luy jur ak noonoo kon wattandiku ak noonoo daf cee bokk waaye léeg-léeg bu seytaane defee ay pexeem wala njuumte am ba ak noonoo nara am ci la benneen jagoo di ñëw muy defaree ab diggante kon bokk na ci ne defaree ab diggante ak sax gaawe ko mooy foo gis ne jafe-jafe ab dafa war am wala ñaar ñu nar a teqalikoo wala diggante bu yàqu nga jóg fexe leen defaree moo xam ñaari nit la wala ñaari kuréel wala ñu mën a doon kon islaaxu zaatil bayn diggante jullit yi dafa bokk ci jagoo yi nga xam ne wala jagle yi nga xam ne jullit yi am nañ ko en tant aw xeet wala ak i mbokk suñ boroom subhanahu wa wax na ni fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum kon nangeen ragal yàlla te yéwénal li dox seen diggante kon mu mel ne foofu li war jullit bi dafa jiitu ci mu jàpp ak mbokk xam ne mbokk jullitam du noonam ak fu mën a dëkk feek mi ngi nekk jullit rek mbokkam la ci xeet wu mën a bokk wala tariqa bu mën a bokk wala mazhab wala kuréel gu mën a bokk mbokkam la loolu la ko war a jàppee bu ko defee mu xér ci rafetal mbokk googu fa aslihu bayna axawaykum wa taawanu alal birri wa taqwa dafay duggaat dimbalante ci lépp lu baax kon niki noonu jullit bi sori lépp loo xam ne mën naa jur ak noonoo bu jafe-jafe amee nag ñu gaaw lu ñu mën ci dindi jafe-jafe booba kon loolu <coughs> lu ci am solo la kon jafe-jafe bu amee li ci gën mooy rafetal ko mooy fexe ba ñagas-ñagas boobu deñ loolu nag dina wuteeg mel ne kuy xamb safara soosa safara si ñu gis muy bëgg a tàkk muy saxaar wala muy doog a jàpp fexe koo fay mooy li ñu war suñu diggante <coughs> waaye bu fekkee ne ak ni jamono demee bokk na ci li yéeme ci jamono mooy jëmm ju ne tey mën naa mën naa nekk caméramanu boppam nekk preneur de son wu boppam def ab scénario am nekk monteuru boppam wax la muy wax wala mu filmer la muy filme waaye li gën a doy waar nag mooy jëmm ju ji nga xam ne moo koy def te léeg-léeg mu xeebu lool ba mel ne man tëju cib néegam def loola mën naa génn daj àddina def lu rëy a rëy ci ay jafe-jafe te mën naa am du kenn sax mën naa am ku xeebu ba mel ne man la waaye bu ko defee nag dafay am accès ci mu mën a jóg atteindre ñu baree bari laal lu bari kon loolu dañu ko war a bàyyi xel mën na am ka koy def sax ak fu mën a mbubboo ak fu mën a bokk mën na am amu fa solo waaye loola muy wax nag nga xam ne léeg-léeg du engagé ku dul moom bu génnee ci pénc mi génn ci réseau sociaux yi génn ci média bi te loola mu def kat moyens yooyu mu am kenn ku ne am na moyens yooya kenn ku ne mën naa jër tey téléphone am def lu mel ne la mu def kon bu ñu ko ca fekk see ku ne yëkkati sëb dënn def lu mel noona kon loolu dafay wuuteeg li ñu suñ borom digal muy defaree ab diggante kon ñu bàyyi ko xel xam ne mënta ñàkk cib jullit ndax ak njullitam mat ak ndax ak jullitam rafet mbokk jullit yi kuy wax luy defar luy tax li ñu suñ borom digal mooy ñu jàpp na ay mbokk lañ te rafetal mbokk gi ku ko jàngat ba noppi war ngaa bàyyi xel war ngaa gersu li nga xam ne dafay yàq dafay yàq mbokkoo googu li nga xam ne bu amee daal dana xajamal diggante mbokkoo googu loolu daf cee bokk lu mel ne alxasadu mooy ak kiñaan walla mbañante al baxda kon iñaan diggante jullit ak moroomu jullitam wala jullit bi bi identifié wu ne ci kuréel sangam la bokk digganteem ak geneen kuréel loole dafay indi leneen te xam ngeen ne kiñaan bokk na ci taweti xol yi nga xam ne ay loram lu lu tar la ci jullit bi bokk na ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne dafay yàq aw yiw ni safara di lekkee mat kon ak kiñaan dañ war nañ ko moytu ci suñu biir en tant que ay jullit moo xam nag diggante individu bi ak moroomam diggante kuréel ak geneen kuréel ndax li li bu mbokk googu mbokkoo googu bu dëgëree sa mbokk jullit lu mu am ci lu baax da ko ko koo war a yéene da ko ce war a ndokkeel da nga koo war a fésal waaye waroo ko ko iñaane te xam ngeen ne iñaan day bokk na ci li tax mu doy waar mooy dafa mel ne yow amoo amoo sax amoo amoo amoo affaire ak ki ngay iñaan ki ngay iñaane waaye dafa mel ne ki ko may li nga koy iñaanee nga amal affaire muy jëmmi suñu borom subhanahu wa taala dafa mel ne dogalub suñu borom neexu la dafa mel ne dangay ngay li suñu borom def te xam ngeen ne bokk na ci ponki ngëm mooy nga gëm dogal xam ne lu suñ borom dogal danga nga koo war a nangu te mel na ne iñaan googu nag bari na lu muy jëf ci suñu societé yi lu ci bari daf koy jëf diggante kër ak kër diggante kuréel ak kuréel waaye dem na sax ba ci diggante ay mbokk te xam ngeen ne doy la lu mat a bàyyi xel la yàlla suñ borom xéewalam yi lu yaatu la ngëneelam yi lu limu la kon boo gisee sa mbokk jullit loo xeemem yéene ko ko te ñaanal ko ci te boo ko xeemee mee nag nga ñaan ko suñu borom subhanahu wa taala loolu mooy teqale diggante alxasad al ak al xibta lislaam may na jullit bi mu gis kii kat xéewal gi mu am mu yéene ko ko ba noppi nag xeemeem ay bu ma suñu borom mayoon li mu ma may ba ma def ci nangam ak nangam wala ma ba ma def ci lim ci def kon iñaan dafay yàq diggante jullit yi suñ borom dafay maye bu mayee kuréel gii lii yeneen kuréel yi buñ ko ko bëggee iñaane day indi jafe-jafe bu mayee jëmm ji lii bu ko ko yeneen jëmm yi bëgg iñaane day indi jafe-jafe kon ñu bàyyi ko xel mu bokk ci liy yàq mbo jullit yi ci société bi muy as suxriya suxriya mooy doyadal nit wàññi nit ree nit ree goo xam ne da nga ci jublu ak doyadal ko ak suufeel ko suñ borom tere woon na ko te ba mu ko teree dafa wax ne kat mën na am ñay doyadal ñeneen ñeneen ña ñuy doyadal ñoo leen gën kon lu mat a bàyyi xel la ndax suxuree googu mokkari googu ñàkk nawloo googu dafa bokk ci liy jur ci diggante jullit yi ak noonoo di ci jur tamit ak mbañeel moo tax lu mat a bàyyi xel la jullit dafay nawloo moroomu jullitam inna akramakum inda allahi atqaakum ak ngëneel bu amee ci ragal yàlla rek la am ak ngëneel ci ragal yàlla la am kon wàññi sa moroomu jullit wala nga wàññi aw kuréel wala ñu mën a doon loolu dafa bokk ci li ngay xam ne li nga xam ne dafay jur ak yàq ci mbokk ak jullit yi wala ci société bi niki noonu at tanaabus bil alqaab maanaam di wooyee nit ki wala kuréel tur wu mu bëggul tur wu mu sib loolu diine daf koy tere diine daf koy tere kon di woowee nit ki tur wu mu bëggul te li ci bari dafay jëm ci wàññi ko loolu bokk na ci liy yàq diggante société yi suñ borom am na fu mu ko boole dinañ ñëw incha allah ci aaya ba bokk na ci liy yàq société bi di yàq mbokk ak jullit yi mooy jëw jëw dem sa mbokk jullit di wax ci sa meneen mbokk loo xam ne bu fa nekkoon doo ko ko wax te yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne dafay yàq ñu war koo wattandiku niki noonu bokk na ci an namima lépp luy jaxase ay diggante moo xam ci wax la walla ci jëf te loola nag mën naa yaatu ndax bu fekkee ne benn pénc bi benn minbar bi benn micro bi bu teyee nga woo diw mu ñëw wax ci boppam wax ne ku dul man du kenn ëllëg nga woo moroomam mu wax ne moom moo fi def lu fi kenn defut moo mën lu kenn mënut bu ëllëgee nga woo keneen mën na am bu yàggee namiima googu kat mën na caa tàbbi te la muy yàq moom itam day nekk lu baree bari kon ñu bàyyi ko xel bokk na ci li yàq mbon ak jullit yi di jeexatal ci société bi muy suu u zann ñaaw njort ñaaw njort dinañ ci ñëwaat inna baada zanni ismun yenn njort yi daal ñaawteef la bàkkaar la mu mel ne boo boo taxawee ci aaya bi aaya bu mat a taxaw la xëy na sax boo seetantalul naka di mën nga wax sa mën nga ne ñaaw njortukat rek nan la mën a nekkee bàkkaar fekk na la mën a jur moo bari sa mbokk jullit mën na la romb koo xam ne dala daan nuyoo yitte saa su ne mu romb la tey ngay wax ak nit mu mel ne la ngay wax ak moom mu jàpp ne lu lu leen ñor la bëggu leen a déranger mu tàllal la loxo dem nga ñaaw ca njort mu mën a indi lu bari seen diggante fekk na dafa doon sàmmoonte dafa doon bañ a ba bañ a jeexital wala déranger seen wax boobu misaal la rek ñu mën cee jël lu bari nga xam ne lu rafet la jublu doon ko def waaye boo ci ñaawee njort gisee ko neneen mu mën a jur leneen lu baree bari kon yooyu yëpp. lu yàq société la mel na kon war nañoo bàyyi xel dante waxtu wi mat na lépp loo xam ne dafay yàq diggante jullit yi ñu wattandi ñu wattandiku ko war a bàyyi xel sax yu mel ne wax yi waxi azaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kaafiran bi zaynaba bi waxee ne suñ borom na ko na fegal loram képp ku mën a doon moo xam ku jege la wala ku sori wala sax koo xam ne étranger la donte ab yéefar la nga bokk ak moom société bi waroo ko lor kon ñu bàyyi ko xel yaa barru rahmatuka arja indana min amalin naksibuhu faghfir lana yaakaar yow suñu borom sa yaakaar wala sa de lañ gën a yaakaar ci jëf ju ñuy jëf kon nag ñu jéggal wali jamii al muslimina ajmain ak mboolem jullit yi wal muslimaati kullihinna ajmain kon ba ci sax wa jumlatil ixwaani min aqaaribi fi tiini aw fi diini wal ajaanibi kon ñu bàyyi ko xel ñu defaraat suñuy jikko ñu bàyyiwaat xel lu baree baree bari ci loo xam ne dafay yokk yàq société bi wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam